képp ku ma tooñ baa ma tàngal sa xol maa ngi lay baalu àq waaye damay laaj xale yi fees laa demoon fees laa demoon suñu ci tijaan jënd fa kurusu or may laaj xale yi mbaa am ngeen kurusu or xale yi mbaa am laay rëq dëkk bi jaamu yàlla sëriñ Fallou lan ngay jooye ci sa yaay amati na ndam kurusu or la yor kurusu or laa yor di bi leen kenn yorul kurusu or man rek maa ko fi yor. kurusu or kurus bi maa ngi ko jëndee bu ko calculer ah dama koy bañ a wax ñu audit ma. Hmm, kurusu or kontaanal man maa jënd kurusu or kontaanal kontaanoo ah kon yàlla baax na. bismillaahi rahmaani